mbokk yi daleen nag jàmm ci seen jotaayu xibaar di leen jaajëfal ci safo bi ngeen safo chaîne bi di OSR Monde politique Toussaint Manga lëkkaloo na ak Ousmane Sonko ki fi nekkoon responsable politique bu parti démocratique sénégalais bi nag xamal nañu ni dem na ci parti bi di Pastef les patriotes moom Toussaint Manga nag nekkoon fii di UJTL ba pare doon teewal PDS ci sud bu Sénégal bi dem na lëkkaloo ak Ousmane Sonko maire Ziguinchor Toussaint Manga nag ci ab lettre mu ngi ñuy xamal ni dugg dugg na ci parti bii di Pastef les sama mbokk patriote yi ñetti weer a ngi nii ci ginnaaw démissionné woon naa ci parti bi ma nekkoon pour am sama liberté ci biir langu politique bi te loolu itam du tere ma am sama samay gëm-gëm yi ma amoon na bi ma nekkee gune ba tey ci weer yi ma dellu woon ginnaaw tax na nag ma mën a waxtaan ak samay xarit samay jegeñaale ñi ma jàppale ak samay ancien sœur ak frère yu ma bokkaloon parti te itam sottante na xalaat ak sénégalais yi ak fu ñu mënti nekk ci dynamique bu bees ba pare nag ba pare wane suñu engagement ngir mën a jàppale ñépp loolu la ñu Toussaint Manga xamal ci ab bataaxal bu mu génnee ci biir waxtaan bu mu amoon ak Sonko nag jàpp nañu ni dugg na ci ab parti politique bu sosu dugg ci ab parti politique bu sosu ba pare nag moo gën di defaraat beneen parti politique. loolu day indi beneen liggéey bu bokkul ak euh, li nga doon def te booy dugg itam dangay dugg ci parti politique boo xamante ni yéen a bokk gis-gis bokk gëm-gëm ci wàllum politik ngir mën a suxat réew mi di Sénégal. mbébét bi yépp nag du lu dul xool naka lañuy ñuy doxalee ngir mën a xool naka la ñuy. Euh, doxale parti bi di Pastef les ngir mën a jublu ci élection yu 2024 yii di ñëw ngir Sénégal naat gën a jëmal Afrique ñu dem ci xibaar yi tàggat yaram yi nag fële ca Qatar gaynde yi amal nañu seen ñaareelu séance entrainement dibéer bi ñu weesu ngir mën a waajal bu baax seen jongante bii di ñëw te dox seen diggante ak Équateur talaata bii di ñëw équipe bu Sénégal bi nag ci seen ay. tàggatu bi ñu amaloon dibeer bi mën nañoo jàpp ni joueur yépp teewoon nañu ba mu des Cheikhou Kouyaté loolu la ñu wiw sport xamal la ci ñaareelu fanu entrainement yi nag Cheikhou Kouyaté rek moo teewul woon Ismail Jacob ak Fodé Ballo-Touré ñoom ñaar ñépp nag tamit ñoo ngi woon ci groupe bi kon mën nañu jàpp ni gaynde yu Aliou Cissé yi kenn manqué wul ngir mën a pare bu baax jongante bi di ñëw nga xama dina am solo torop suñu bëggee wéyal suñuy coupe du monde kii di Tony Silva nag moom ci booram mu ngi tàggat suñu ñetti gardien yi ngir ñoom tamit ñu mën a wéyal seen liggéey comme ni mu waree ci lu sori torop ci lu sori torop caméra yi ak média yi Aliou Cissé nag mu ngi saytuwaat bu baax naka lay def ba gën ak ba génnee ak ndam ci joŋante bi di ñëw nga xamante ne dafa am solo lool ci gaynde yu Sénégal yile mbokk yi lii lañ leen indiloon ci seen ay jotaayu xibaar di leen jaajëfal di leen jox di daje ëllëg ci yeneen jotaayu xibaar di di leen jaajëfal mbokk yi internet yu OSR Monde yi.